dañuy def euh, transition ñëw ci showbiz bi parce que dix ans d'expé plus de dix ans d'expérience macha allah te musique sénégalaise Ray Joxoñ sama tailleur titre boo fi génnee rek sénégalais yi bëgg nañ ko. def na buzz. def ñëpp bëgg ko tey kii Papa Ndiaye euh, message ngay jox euh, xale yi nga xam ne ñu ngi door a dugg ci showbiz bëgg kut ko kut ñu xam leen. bëgg kut ku kut réussir te ay scandale dañ leen ciy tudd saasu ne wala duñ ko sori. waaw li may li may wax rek mooy tur neex na lool mais attan tur tamit daf ko ëpp solo neex na lool waaye attan dafa daf ko ëpp solo te xaar tamit ba yàlla ba ba yàlla siiwal la dafa am solo xam nga boo xëccee tur boo xëccee tur danger bu mag moo daf daf ci nekk. ne amoo lay taayam te tollu woo ci. ndax dafa am tour dafa am lu bëri lu mu làmboo loo xam ne ku siiwul mënu la ko wax li waykat ba waxoon ne maanaam ku jaar ci taatu garab euh, bëccëg xam la fay meññ euh, ku jaar ci ba garab guddi xam la fay meññ da nga faa jaar bëccëg moo tax xale yi il faut ñuy dem di taataan ci mag ñi nga xam ne dañoo jaar ci bëccëg ci ci taatu garab ga bëccëg mun nga siiw mais doo am xam-xam looloo waral équipe bu amee xale yu sawar mën a fubal bëgg ko du tee nag dañ leen wutal coach coach mooy ñu dem ne ah nañ leen dem jële Amoros wala nañ leen jële El Hadj Diouf wala nañ leen jële Sadio Mané wala nañ leen jële euh, Alioune Cissé parce que ñooñu dañoo jaar ca terrain ba bu yàgg xam la leen doon taxam marqué match euh, la leen taxoon a manqué ay match yu bëri lii topp seen fugu tax nañu ñu ñàkk ko lii bëgg ne man tey maa maa maay lom di match moo tax ñu mar ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu man euh, euh, kii perte match boobu léegi nag bu yàlla defee ñu toog ak mag moo xam ne dafa jaar foofu yëpp bëri am lu ko tax a perte bu ñëwee bu ñu toogee moom danaa la saawaay tey seen match bi boo leen ko bëggee gagné lii ak lii ak bàyyi leen ko moo tax ñu ne mag mat naa bàccim réew da ngay gis xale yéeg fu sori du gis dara mag tëdd fi mu tëdd di gis ndax mag xam-xam la daf la dafa dafa dafa dafa dafa yàgg ci àdduna moo tax ñu ne mag mag. du yàlla waaye dafa yàgg ak yàlla mag day tëdd fii gone gi di def fekk ne li muy def ak fa mu war a jëm ak fa mu war a toll yépp da koy gis nii da koy gis nii parce que dafa jaaroon waaw jàllaat ci beneen question bi rek parce que tey Pape Ndiaye ci plus de dix ans d' expérience yooyu liggéey na ak ay producteurs yu yu ñu xam fii ci Sénégal ay Prince Art entre autres tey bu ñu jëlee par exemple kaaw damay cité turam naa Balde ak Bril tey nobante nekk seen diggante scandale amoon ci ba mbirum police euh, am ci yoon tey Dieyna ak Bril ñoom seen collaboration est-ce que dina doon luy luy continuer ci côté carrière ci côté carrière parce que bu xoolee sax ci droit dañuy tere ñoo xam ne dañoo bëggante bokk même euh, intérêt boo xam ne moo rab même liggéeyukaay boo xam ne moom la ñuy def pour ñu mën a euh, conserver seen intérêt général. question bi dafa dafa dafa ma xaw a lënt ndax xañ ne boo gisee ma mu xaw ma lënt mooy def ma ci attention parce que li tax def ma ci attention yu bëri na ay euh, yu xew ci jamono ji. suivre ma ko parce que dafay nekk ay ay ay yoo xam ne ay détails lay doon pour man comprendre nga parce que milieu showbiz dafa jaxaw a jaxasoo ba tax na tey fi mu toll nii am na ci bëri mënatuma ko sax seetaan parce que damay gis ne maanaam moo koy seetaan tamit daf may du du dama ci gisatul dama ci yóbbu ji ci bëri dama ci gisatul sam mbopp boo degee ma ne gisatul sam mbopp bu njëkk ba showbiz ñun buñ ciy dugg euh, dañu fekk ay mag yoo xam ne ñoo nekk ci ci ci ci ci showbiz bi am lu ñuy bañ am lu ñuy bëgg am lu ñuy ragal am lu ñuy jomba def di garder ay valeurs yu am solo bu njëkk ba dangay gis gis musicien nii boo ko gisee nii rek dafay am lu mu def ci yow parce que wegu bi mu wegoon boppam ak fi mu tegoon boppam du rëy du dara mais dafa am lu mu joxoon gëdd tey boo doon joué ci kaw seen sax ba foosee boo tëddee doo nelaw am na loo xam ne boo ko defee boo ko defee daanaka boo boo ko boo ko def wax ma sax jëfi jëfi jëfi jëmm wala jëfi loo xam ne di doomu adama da koy xool nit ñi di mer wala di kiine mais boo doon jouer rek xaw def erreur rek boo tëddee doo nelaw ku ñu yar ci loolu wax ma laa nag nga génn di def leneen ak leneen ak leneen mais comme milieu showbiz dafa xaw a euh, euh, doy jamono ji mënuma ci wax lu bëree bari parce que loo suivrul loo suivrul dëgg doo ci mën a wax doo ci mën a wax lu bëri mais ñaar ñoo xam ne bokk nañ liggéey bokk jikko jikko yu baax góor gi xam ne kii yor na jikko ju baax jigéen gi xam ne eh, góor gi yor na jikko ju baax eh, yor na jikko joo xam ne war na mën a toog ci kër sëy hmm? góor gi xam ne kii kat wax dëgg yàlla bu ma ko jëlee am soxna eh, ku jigéen ki xam ne kii bu ma ko jëlee am jëkkër ñooñ war na na mën a ànd sëy parce que sëy métier war ko tënk ndax bari nañ gis ñoo xam ne tey ci seen milieu métier bu dul aar bu dul dara ci lañ takkee soxna da am sa koo xam da ngay ànd ak moom di liggéey moom nga gis ko gis jikko yi nga tey bu ma la joxee soxna soxna soxna Xadijatu yonent bi sallallahu da ko doon liggéeyal mu xool ko gis ci moom ay jikko yoo xam ne jikko yuñ tànn mu jël ko mu jël ko euh, borom kër kon loolu métier dàqul maanaam war a mën a am borom kër goo xam ne gis nga ko ne baax na nga ànd ak moom ngeen sëy wala jigéen boo xam ne gis nga ko ne baax na soxla gis nga ay jikko yu baax moom nga sëy ak moom waaw loolu moom waaw waaw loolu laa si gis waaw yu bëgg a suivre mbalax maa ngi leen di wax ne leen lu doy waar la surtout jamono ji ñu nekk nii mbalax dafa weex dunq musicien moo weex dunk artiste moo weex dunq géwél moo weex dunq ndax lu yàq ñu ne géwél yi la lu yàq ñu ne artiste yi la léegi nag buñ demee ci jamono ju toll noonu te yàlla defoon géwél nekk loo xam ne lu dammaan dañ naan dañ leen seeti géwél yi lun mas a gis ba kenn amu ci solution dañ naan dem leen seeti géwél yi ñu waxtaan ci xool ci ndax suñ borom may na leen xel mu rafet buñ dajaloo njëriñ feeñ kon bu jamono demee ba changé ba nga xam ne ñoo ngi daw loolu wala di leen tegal baat am na lu rax ci soow mi waaye géwél fa mu nekkoon ma nga fa ba léegi géwél ci dignité am géwél ci xool lu war a yàqu mu defar ko ba mu rafet te du ca nangoo feeñ géwél da ngay gis téeméeri nit euh, toog ñu juddoondoo ci benn koñ mu xam ne kii kat jëf borom jëf jëf jëf ju baax la ñu toog ay nawle mu summi yëree juddu summi yére ëppalante summi mboolem luy yëre daraja teg ko ci suuf ni Moussa mii de gor la ko baax la wax te yàlla tax loo xam ne moom mënu ko wax ci boppam te ñeneen mënuñu ko ko waxal mu sulli ay ndamam loolu géwél moo koy def géwél mooy xool gor suñ nar a yàq mu raxas la ba nga set ñu sosal la mu wax loo xam ne mu wax doomu aadama yëpp ne lii kat ay sos la waaye amul loolu tax maanaam kër buur yi daan am géwél parce que dañ ñoo ñooy historiens yi mooy comme yéen ñi léegi fi ngi fi mu toll li ngeen di def nii rolu géwél la yéen da di xool ay ay ndam ak xool lu làqu ngeen koy ngeen koy sulli xañ na bu ngeen ko waxul sax seen micro ngeen di dégg di sule ay ndam di sulli loo xam ne maanaam dafa war a sulleeku loo xam ne dañ ko dañ ko muur mu war a ko loo xam ne doomu aadama yi dañ ko war a jot ngir jëriñoo ko di tamit di xool loo xam ne tamit euh, géwél day xool loo xam ne bu ko waxee penc mi tas te du jëriñ mu xool naka la koy def ba nga xam ne ki nga xam ne nekkul ci dëgg dina ko xamal ne ko lii nga nekk du dëgg waaye nag nanu fexe ba du mu jib te na ko ba yeddaat la xamal ne la sa maam ya fa nu bokkoon yow di def lu ñaaw waru la wax lu ñaaw waru la say maam mooy diw ak sàngam sa maam mooy ma dun jóob moo jur nangam ak nangam keroog bañ ko nangam ak nangam nangam ak nangam ba nga dellu si waat xam ne yow mii kat def lu ñaaw waru la loolu mooy géwél géwél day fekk ànd ak nit màggandoog moom ëpp ko daraja ëpp ko alal ñu ànd ci géew mu jël xaalisam bu bari jox jox jox géeram ne ko bu mu duggee ci géew bi xam naa ne tey marché neexul bu ma duggee ci géew bu ma waxee may ma fukki junni yi kooku jël ñu woy ko woy wu neex wax wax ay maamam mu jël may fukki junni te yóbbaale wuloon fukki junni te bu génnee am ndam ñu ne diw de démb toj na xew ba kooku géwél gu baax moo koy def ndax nit mun naa yor woy wu baax mun naa yor jikko ju baax waaye du yor cent franc kon bu ñu jaxase yëf yi boo ànd géwél géwél nag bu baax sa jikko lay xool ànd ceeg yow koppar yi nag am na solo lool waaye nag ànd nit ci jikko même bu dee fekkee ne amul sax dara nga xam ne am na li yàlla teggee yonent bi mooy jikko ju baax waaw waaye géwél du ànd rek ni diw am na kon bu fekkee ne noonu ngay def dégg da ànd nga fi bàyyi borom jikko yu rafet yi kon borom alal rek ngay àndal doo fi jikko yi nga xam ne ñooy ñi yàlla tànn ci kaw suuf ñi yàlla bëgg ñi nga xam ne defar nañ seen jikko defar nañ seen wax defar nañ seen toogaay ñooñu dañuy jarañu bàyyi xel ñooñu kuy géwél boo leen fekkee ci ci mbooloo war nga leen teral waaw. en dernière question rek balaa ñuy tëjee si nit ñi tey ba tey profilu Pape Ndiaye Coppet taasu lan la ko ci may. ak ban anecdote la retenir ci taasu. waaw taasu taasu li ma li ma may bëri na ndax taasu may na ma gën na leeral sama aar gën na leeral tamit Sénégal ne kii kat lu baax rek la bëgg yaa ngi dégg leeral na ne lu baax rek laa bëgg ndax man bi may dugg si ci taasu suñ borom dimbale na ma même bu ma fi defee bu ma defee ci taasu ay 15 ans wala 10 ans suñ borom dimbale na ma ba lima ma li ma soxla woon ci taasu bu ma ne du ma ne aw lépp ndax ku doon may ku doon may sa bopp doo jeexle waaye suñ borom dimbale na ma ba lépp loo xam ne xaj ja bëgg naa ko ci taas suñ borom may na ma ko ndax bi may dugg si dafa kàllaama yi fa ma ko fekkoon boobu taasu am euh, du ma du ma du ma du ma du ma du ma xas la fi jiitu woon parce que képp koo gis rek mu dugg ci mbir day yokk wala mu wàññi mais bi may ñëwee bi ma ñëwee ci taasu dafa am lu bëri loo xam ne dama ko ci defaraat. dama defaraat texte yi moderniser ko texte yi moderniser ko euh, indiwaat yeneen façon rythme doomu aadama yi di di di consommer bi bare ba pare di ci dégg ay wax yoo xam ne wax yu éducatif la yaa ngi dégg boo déggee sama sama sama kase di njëkk yi yëpp. amul ci benn moo boo xam ne rek di nga ko dégg rek mu déranger to yooyu dama ko doon sóoraale booy xool euh, bu ko ràccati laa ubbee woy au secours tey mu saf sàpp saf saf safal dugg kii dugal mu naayis ma ñëw wax ci yoo xam ne wax daal wax dëgg yàlla dinaa la jox sama moom dugg dugg ci kalante bi kalante tooñ njóobee ni tooñ dinaa la jëndal naajo ba naa la jëndal karottaal wax ak sama sama sama waa askan waa Sénégal ñu jógee fa ma def ne ko réel ne ko réel ma indi fa ay riim yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, ci la taasu commencé am riim taasu dafa dafa doon am dañ nuñ ko nuñ ko doon par exemple taasu da nga daan wax benn paragraphe rek mu jeex comme ça nga ne coppet nekko ci pay saxaar mu jeex wala nga maa demoon kolobaan sama ginaar nañ fa dee yaa ngi dégg hmm? euh, wala wala wala wala nga ne nga ne ubbil mbarka njaay dëggintaaj dëggintaaj ak ventilateur climatiseur boo ma dee raay raay ma ci naq li ci des dañ ma koo tere xam nga yooy wax la yoo xam ne wax dëgg yàlla boo bun nga ko fe fecc bi nga nekk xale mais boo màggee dana xam ne lii kat waree su ko wax ci ay mag yu toog am déet ma xool wax yooyu te ñooñu xaj na seen dimension foofu la tolloon ay ubbil mbarka njaay moo tax buñ ne xale yi yàqtaas ma leen def leen attention ñun fii lañ fekk ubbil mbarka njaay fii lañ fekk ventilateur climatiseur boo ma dee raay raay ma ci ah, li ci des dañ ma koo tere fii lañ ko fekk am déet ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay xalaama ndir bàjjo yooyu yëpp fii lañ ko fekk ak jaljali oto ba dagg na tëli ba jaljali rës yooyu yëpp fii lañ ko fekk ah ñu ne bi ma ñëwee ma xool naka laa mën a def ba nga xam ne yi ma ci mën a changé ba nga xam ne damay au lieu parole yoo xam ne maanaam day vexé mais parole yoo xam ne yu éducatif la waaw booy xool sama kaset yëpp yu ci bëri bu ma buñ toogoon fii ma lay ma lay génnal ay kaset kaset di la tegal naan la li ma ci wax danga naan yé eh, mais yow Pape Ndiaye man xaw moon sax li ngay wax ci kaset yi kon ñoo ngi sant yàlla ci jo durant boobu ñu ñu ñu def ci taasu ba ñëpp bëgg gën a bëgg a taasu révolutionné ko mais li ma li ma li liñ bëgg rek mooy maanaam buñ ko révolutionné ba pare ñi nga xam ne ñëw nañ mooy xale yi ñoom tamit dañ xam ne am nañ euh, làcc bu bu bu bu rëy bu ñu war a bay mooy kiñ gisoon muy seen idole kooku mus a xalaat cee def lu ñaaw mus cee xalaat def lu bon mus cee xalaata def loo xam ne bu ëllëgee danañ koy yeddee ay ay njabootam wala nangam ak nangam wala bu dee am it xaj sax sax euh, parce que niil ne parfait parfait nit ku dul jum amul waaye day lépp lu nu mas a liggéey ñoo ngi ci bàyyi xel sunu borom. lu ma mës a liggéey sama kaset ba ma nekkee ca Fallou ba léegi lu may liggéey maa ngi koy seetantal di ko xool di ci moytu lu bëree bëri bëri. dernière question rek tey ñu gis Papa Ndiaye indi si Ndindy même aussi même jour mu génnee it beneen featuring boo xam ne moom ak Adam ñoo ci bokk taasu yi neex mu doon lu contradictoire est-ce que du stratégie de communication tamit pour signer ce combat. non non dama ne la bu ma jógee ci Ndindy dama am feneen fu ma jëm. si di moo ubbi yaa ngi dégg Adam Sène man ba mu mujjee def émission 2STV yi dama ne dama ne Sénégal man dama pare woon pour bàyyi sax aar bi mais waxuma woon fu ma jëm waaye yàlla dafa def dama yor ay contrat jàmbur man dama ubbi woon fii studio fii ci kër gi nii jël ay production ay xale yoo xam ne dañu joxe seen avance moo waroon leen dóoral kaset comprendre nga Adam Sène boobu dama jël xaalisam ñu signé woon pour ma ma ma liggéey ak moom benn album cassette mor muy morso boobu bi ñu ko liggéey dafa am lu ci toppoon ay phase de promotion ay nangam ak ay nangam ak nangam lu ñu waxante woon comme comprendre mu nekk yoo xam ne tey fim mu toll nii bu ko xaj na bu ko toppoon invitation yi mu def nii télé sax dama ciy ànd parce que dama ko dama dañ am lu ñu waxoon ne dañ yooyu yëpp dañ ci ànd dem def ko malgré que am na loo xam ne mu am na ci diggante bi mais contrat la tey bu taxawoon ñu gars yi indi police ne affaire nañ ko teg ci yoon a ah, dañ ne yow amoo droit dem di tëri te li nga si ñëw woon pareegul non euh, euh, loolu dañuy waxtaan la rek parce que boo léegi ñoo ngi waxtaan maak ñoom parce que ñoom dañu yor seen contrat am ñoo xam ne tamit ñoom dafa am lu ñu waxante woon maak ñoom am ñeneen ñoo xam ne ma yor seen fii seen liggéey liggéey yooyu nag laa ne woon Sénégal maa ngi fexe nu mu paree bu ma pare bu liggéey fi mu toll nii mixé naa ko def na ko def naa ko yëpp dinaa ko sànni waa àdduna ñi nga xam ne ñoom moom seen liggéey ñoo ñëw jël si ko ndax dama entamé leneen. léegi nag ay production la li li nekk fii nii ci ay morceaux dafa bëri trop trop trop trop trop yoo xam ne ay morceaux jàmbur la yooyu yëpp yi nga xamoon ne nag moom yoroon yoroon naa ko dinaa ko. da yooyu dama ko jaay sax dama koy sëlëx sama fans yi may leen ko ñu bëggee ko comprendre xam ne seen fans kat mu ngi leen lu toogam yëpp mu ngi leen doon dem waale mais lii lii non du loolu du xaaraat sax noo noo non <laughs> bul ma dugal foofu <laughs> <laughs> mais non fi mu toll nii fi mu toll nii maa ngi instant bi moom dama xaw a cons am fu ma concentré wu mais am naa ay morceaux yoo xam ne mu ngi ci machine bi te machine xanaa du ma def ay millions ba pare di ko di ko effacé noonu ak ay ab doomu aadama ñëw fay ma seen xaal si ak man contrat mun nañ ma ci yóbbu police mun nañ ma yóbbu police nee ma yow saawaay booy bàyyi bàyyi ñun suñu ñun bàyyi wunu suñ xaalis lañ la jox ana xaalis bi nga lekk yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne maa ngi toog ak yi di waxtaan ñi ci am xel ah gars yi njaay bu dee loolu la garaawul mun ne ma am yoo xam na ñoo dëgër fit cramponné wu ñun mooy ñun gaayen xool ñun soxlawuñ xaalis soxlawuñ nangam ak nangam doo ñu tardeel ba heure bi suñ morceau lañ soxla quoi na son jox ñu suñ son ay gars yu kose mais ñoo ñoo ngi waxtaan di xool naka la ñuy def trouver terrain d'entente ba nga xam ne yooyu yëpp dinañ xool naka lañ mën a def ba nga xam ne dina jaar ci jaarin bu rafet te ñaawoo du am ndax bi may jël seen xaalis nag dafa neex yaa ngi dégg waruñu signé ba kii nga am noo xam ne def rek nga leen di jaay ay fiit ak ay di jaay da ngay aaloog noonu du ko def voilà. sa dernier mot balaa ñuy tëjee si ndindi ndax moom nga ñuy may ñu tëjee ko. waaw si bi nag mooy tëj euh, waaye sama dernier mot mooy fans yi nañ dalal seen xel. li tax ma euh, ma ma am nu ma def rek mooy man damaa yor ay fans yoo xam dama leen respecté dama leen di dem waale ci lu bëree bëree bëree bëri dama leen di dem waale ci samay wax dama leen demoale ci ni may ci sama comp samay comportement damay dema ñoom ci ñoom maanaam ci samay samay sama lépp daal sama lépp sama lépp dama leen parce que ñooñ dañ bëgg kilo bëgg nag war na bu demee seen kër wala mu toog ay mbokkam dinañ xam ne kii kat ki mu bëgg am na lu mu def ci moom bu dem ba demee seen kër nit ñi dinañ xam ne kii kat ki mu bëgg defal nañ ci loo xam ne ñun sax xaj na ñun mënuñu ko woon ci la nga xam ne ñun moom la ñu roy ci ñi nga xam ne mooy gars yu baax fi nekkoon mooy a fexe ba xam ne dinañ fexe ba duñu tooñ dinañ fexe maanam ba nga xam ne dina xam àq bi ñu war a jox doomu aadama duñu siis duñu rëy duñu nay dunu bew dunu xëccoo lenn kay la nit mën a xëccoonteeg ñun mu jaral ñu toog ñuy jooy yaa ñu yaa ñu gën a baax yaa nu gën a yaru yaa nu gën a teey yaa ñu gën a bëgg sëriñ bi ñun foofu la suñ xëccoo nekk xëccoo ñun dañ mbaax la ñuy xëccoo doo ñu a baax foofu la ñuy xëccoo xëccootuñ maanaam doo ñu gën a rëy oto doo ñu gën a rëy kër doo ñu gën a dàq soxna nekkutuñ nekkuñu foofu parce que loolu yàlla da cee ab saar la course des ku nekk dégg na ko ñuy xëccoo alal ñun xëccoo ñu loolu li ñuy xëccoo mooy mooy jikko bi nga xam ne moom la yàlla waxoon yonent bi tagg ko wa innaka la ala hulihin nasimin tagg ko ci gën gaarafeti jikko ñun bu ñu xëccoo nit wala ñuy ñee nit dañuy ñee koo xam ne tey fi mu toll nii leer nañu maanaam kii kat wax dëgg yàlla même ñu ko dàqee yére it moo nu moo nu gën a rafet jikko ñun kook la ñuy ñee kon nag war nañu fexe ba nga xam ne ñun ñi ànd ak ñun mooy xale yi ak ñi ànd ñu fu ñu dem ba toog fu nu waxee dinañ xam ne wax dëgg yàlla ñii de ay xale lañ waaye xale yu mën a bokk ak ay mag lañ ndax raxas nañ seen loxo ba mën a bokk ak euh, mag ndab moo tax loolu aw sas la aw sas la ndax boo jógee ne dama Pape Ndiaye coppet laa fan wala moom laa jëm ñu ne eh njaay Ndiaye coppe nga de waaye boo demee ba seen biir kër boo fa toogee say parent dinañ xam ne kii amul àndandoo bu bon dinañ la sax ñu ne noonu wool ñu Pape coppet mu ñëw parce que danañ gis ci seen seen njaboot changement boo xam ne ñoom dinañ leen defuñu ko ci moom. teg te maanaam boo bëggee soppeeku utal ànd bu baax boo bëggee tamit so soppeeku bon utal ànd bu bon kon ñun dañuy jéem fexe ba nga xam ne maanaam. kuy ànd ak ñun doo bonee ci ñun